الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته man la Imam Khadim Ndiaye eh, jiite commission scientifique yaatal mbindum alquranul karim eh, jërëjëf eh, ci laaj bi waaw tey ñu ngi fii Touba kër Cheikhul Khadim ci Daaru Mannaan Euh, di fi amale finaalu concours bi muy njeexteel bi euh, njeextalu euh, concours alquran karim ci wàllu mbind ñu baree bari jóge ci gox yu bari ñëw doon bind si ngir jël seen wàll ci lan mooy seen sens boo gisee tey ñu ñëw fii Touba defe ko fi yu baree bari waral na ko waaye bi ci jiitu mooy doon gum doon digg réew mi ñu baree bari itam gox yi ñuy jógee euh, mën a jàppandi ci ñoom ñu gaaw a egsi bi ci des tam mooy euh, xam nga ne région Diourbel rawatina Touba euh, fonk mbind gi ak mën a bind gi fi nekk ak yooyu yëpp waral na ñu ñëw fii tey di fi amale concours bi biñ tàmbalee ba léegi nag waxoon nañ leen ne ñi ngi amoon cinq cent soixante-quatorze personnes juróom juróomi téeméeri candidat ak juróom-ñaar fukk ak ñeent ci bu njëkk ba biñ noppee nag ñu tànnoon ci euh, euh, ñeent fukk ñeent fukk yooyu ñu ci tànnoon nag nga xam ne ñoo jiitu dem demi final biñ demee demi final tam ñu jël ci ñaar fukk ñoo ci jàlloon euh, ñaar fukk yooyu nag ñoo ñëw final tey di bind kenn ku ci nekk war a bind robo bind nañ ko ba eggal am na ay góor am na ay jigéen Euh, ñu war a xool nag léegi ci ñooñu ñett ñi nga xam ne ñoo ci jiitu ci góor ñi ak ci jigéen ñi loolu mooy taxawaayu tey bi euh, mbindum alxuraan nag euh, ñu bari ñu ngi koy dégg xam naa buñ seetee ci fu baree bari daaniki concours bind alxuraan moom déggaguñ ko fenn kon nag ñu ngi ci sant borom bi subhaanahu wa taala léegi nag am na lu ndaw ndaw loo xam ne rek bëggoon nañ ko leeral ndax ñu bari dañ dañuy dégg mbindum alxuraan waaye tàmbaleewul ci mbind waaye jumtukaay yi ngay bindee sax ci la bokk xam nga ne bind ci aar la aar euh, aar dafa am solo ci lislaam daf ko fonk boo ñëwee ci bind bala ngaa bind da ngay am jumtukaay yoo binde da ngay am xalima ki ngay bindee da ngay am daa ji ngay binde da ngay am këyit wala dangay am àlluwa mag ñi ci seen jàmbaarte euh, ñoo daan dem ci lawbe bi yettloo ko àlluwa mu yettal leen ko ñu dem ca euh, waañ wa jël ay ay cin yu bari soos ci ba amal ci seen bopp daa dem ci àll ba jël fa ay bant xalima ñu di ko tudde mbañ fala mbañ fala sax moom moom saalum la jóge eh, ñu doon jógee eh, saalum di ñëw njaareem di laxas di jàng su ñoo ko indi mbañ fala mooy fala mooy ak tracé fi saawoo gi di jaar booy bay dij googu fii nekk nga xam mooy bantu xat bi dij googu machine mënu ko jaar ci kawam gopp mënu fi jaar mooy nanguwul tracé jaar ci kawam dij googu moo tudd mbañ fala ci la ñuy jëlee nag bant bi nga xam ne ay poñ lay def nga xam ne boo ko jëlee di ko sot moom ngay bindee waaye bu dee ci bawol moom dañ naan bantub xat waaye bu dee saalum ñu naan ko mbañ fa la léegi kooku nag moom la ñuy jël yett ko buñ koy yett yett bi dafa am anam guñ koy yette loolu ñuy wax mbel maa ngi koy laaj gone yi bi bi ñu daataan tàmbali may leen li ñuy wax mbel kan moo ko ci xam waaye yeex nañ koo tontu ba mu mujj jéem ko tontu mbel mooy baatub xalima gi ni muy guddee bu fekkente ne xalima gi bi nga koy sot baat bi dafa gàtt xalima gi day yuut boo sëppee booy bind day yuut day bindal boo bindee waaw day gëmm boo bindee miim day gëmm waaye bu fekkee doq gi dafa gudd nga xaar ko xar bu yam boo sëppee wiccax mën ngay bind ba bind yetti bind te doo sëppaat ba noppi te du yuut ci sa kayit loolu lépp mag ñi ñoo ko liggéey nga doog a ñëw nag ci biir mbind mi ak anam gi ñu koy defee nga xam ne loolu boo ko toppoon rek moom kese doy na doy na waxtaan loolu moo tax euh, euh, Serigne Seck c mu gis ne wax dëgg yàlla bokk na ci liggéeyal lislaam ñu xoolaat mbind mi nga xam ne mag ñi taxawaloon nañ ko te mbind fu alxuraan egg mbind ko fa yóbbu ndax bu doon tari kese la kon na gën a tey wuute yi na ci yokk na ci moo tax Seydina Ousmane mi ñuy askanale ñu ne ar rasmul Ousmane yi bu ngeen déggee concours bi ñi koy topp dañuy dégg ñu ne ñetti anam la ñuy laaj kii bind na ko bind ci rasmul Ousmane yi na ko bind ci na na mokkal mokkal gu rafet waaye itam na fekk na ko na ko bind ci ko bind ci mbind mu rafet mooy jawdatul xat mbind mi na rafet na dëppoog rasmul usmaan yi waaye na ko mokkal ñu wut ay nattukaay yoo xam ne ci la ñuy xamee ki mokkal alxuraan am nattukaay yoo xam ne ci la ñuy xamee ki nga xam ne mbindam rafet na mbind mu rafet daa am ay règle yu ñu koy xàmmee rasmul usmaan yi itam téere yi dañ koo bind nga xam ne boo bindee bu dëppoowut ak xawaayid yooyu muy règle yi Seydina Usmaan santaane woon biñ bindee alxuraan ba mu xool ko ñu gis ne borom xam-xam yi ko bind gis ne lii mooy lañ jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kaamil booba des fi ñu bind ci ay copie yu bari tasaare ko loolu ku ko respecté wul ci mbind dañuy gis ne sa mbind bu fekkee wér na it dëppoowut ak rasmul usmaan yi kon duñ ko ictimaat duñ ko sukkandiku kon loolu moo waral tey ñu ñëw Touba fii nekk ci liggéey boobu nga xam ne ñoo ngi koy jeexal tey ci final bi mu war des nag cérémonie bi nga xam ne incha allah buñ defee correction ba génne premier deuxième troisième su boobaa incha allah ci weeru koor bi buñ ca eggee jàmm la ca war yëpp ci yaatal incha allah danañ ko def. waaw loolu nag euh, ñu ngi ci programmation bi am na yu baree bari yoo xam ne ndax biñ ne mbindum alxuraan rek mbind dafa yaatu te am na yu ca aju yoo xam ne bëgguñ ko gaaw a jiitu te ñu ngi ci programme waaye incha allah bala moo yàgg dañ leen ci génneel yeneen yoo xam ne euh, dañoo da danañ jàppoon sax ne lii bokkul ci mbind te ci la bokk. bokk na ci programme yi ñu am. mooy euh, concours yaatal mbindum alxuraan mi ngi waajal ci bindkat yi nu ñuy def ba am kaamil boo xam ne kaamilu Sénégal la nga xam ne ni ñu amee kaamilu Madina ni ñu ko amee Algérie ni ñu ko amee Tunis ñu am kaamil boo xam ne dana wuuteeg yi kaamil yi doon génn waaye ci geneen anam goo xam ne bu génnee ci àddina bépp fu mu dem danañ xam ne bii mooy bu Sénégal Euh, loolu ñu ngi ci ay ay waajtaayam ak ay taxawaay yoo xam ne xam naa buñ ci gënee sori danañ ci jox ay leeral beneen bi ci des mooy ñi nga xam ne ñooy lauréat yi ñett ñi nga xam ne ñoo ñooy jiitu ku njëkk ki dana am juróom benn million euh, ki ci topp dana am juróom million ak genn wàll keneen ki ci topp moom it dana am juróom million juróom benn lay doon juróom a genn wàll ak juróom million ñoom ñett ñeneen ñi ci des itam ñoom itam dana am yeneen neexal yu am solo yoo xam ne nii finaliste yi euh, dix-sept yi ci des dana am yu am solo yoo xam ne ñoom it danañ ko am loolu bu ko defee nag xëy na mi ngi gën a leere ci bu ñu eggee ci cérémonie bi nga xam ne ñu ngi koy amal ci biir weeru koor wi incha allahu taala euh, su ko defee kon xam naa euh, ñi ngi sant bu baax a baax ci turu alhaaji Serigne Seck mi ngi sant it mbooloo mi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bi nee na seen cant la am waaye seen fay moom suñu borom subhanahu wa taala moo ko am ndax gis na borom daara yi ñoom ñëpp ay responsable lañ yore ay daara ñii di ay directeur ñii di ay jàngalekat yore ay ay ay yan yu diis a diis waaye teewul taxawaay bii nga xam ne moom lañ taxaw ci eh, liggéey bi ak ni nga xam ne noonu la ko bëggee woon yóbbu nañ ko foo xam ne vraiment kawe na njortam di sant itam waa Touba gépp nga xam ne saa bu ñëwee rek li ci war lépp ci ay taxawaay ji nga koy def kon daal ci jeexital El eh, Hadj Sëriñ Seck nee na mi ngi sant cant goo xam ne am na tàmbali waaye amul yem waay jëmee ko ci mboolem koo xam ne yaa ngi yëngu ci biir groupe bi ak noo ci yëngoo rek lépp mi ngi ci teg bëtam te wuutu nañ ko ci wuutu goo xam ne su doon moo ci nekk ci suñ ginnaaw di ànd koog ñu nit wala mu jiite ko ci doxaliin bi donte sëñ daara la xam na mbind jàng na bind na ay kaamil tàmbali woon jàngale alxuraan ba mujj mu yëngu ci mbirum commerce kon xam na li xam ne moom la sëñ daara yi di def waaye bu fekkoon moo ko taxawee it nee na wóor na ko ne nii nga xam ne noonu lañ ko ci wuutoo moom euh, def nañ ko noo xam ne mooy gën a kawe na nga xam ne noonu la ko yéene woon wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu anta bi ni'mati rabbika bi majnun